bismillahi irrahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yu guddik tey gi mooy guddi fukkeel ak juróom-ñett ci koor gi naafileeg tey gi di fukki rakka rakka bu faatiha benn yoon sabbi xisma rabbika laala ak xul yaa ayyuhal kaafiruun ak xul walaahu ahad lu ci nekk benn yoon fukki rakka la muy juróomi sëlmal rakka bu ne suratul laala muy sabi isma rabbika benn yoon xul yaa ayyuhal kaafiruuna benn yoon xul wallaahu ahadun benn yoon asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa